La clameur des vagues semble rapporter les soupirs de l'océan. La mer est sur ma lasse. Après avoir vu mourir dans ses replis tant de jeunes migrants africains, Rufisque paye un lourd tribut à la reprise du phénomène Barça-Barsac. 13 jeunes du département ont péri dans de cruelles circonstances au large des côtes marocaines en tentant de rallier l'Espagne à bord d'une embarcation de fortune en empruntant la voie sinueuse des eaux de la Méditerranée pour rejoindre l'Occident, le souhait des victimes était de rompre avec la misère et l'extrême pauvreté en Afrique. Le rêve, hélas, s'est brisé en pleine mer, à des milliers de kilomètres du prétendu Eldorado qu'ils cherchaient vaille que vaille à atteindre au prix de leur vie impitoyable, coup du destin. Kaolène Digue, localité située dans la commune de Rufisque-Est, est le quartier le plus éprouvé par la tragédie. Si, parmi les jeunes décédés dans ce périple, qui s'est achevé accidentellement à Dakhla, au sud du Maroc, habitaient dans cette contrée de la périphérie dakaroise. Ils ont grandi ensemble et joué dans cette rue, frappée par le deuil. Le plus jeune Pape n'avait que 20 ans. Sa famille est sous le choc. Sa mère, inconsolable. La terrible nouvelle leur est tombée dessus, tel un coup de massue. jéeye bi day ñun ñu ngi ko yëg samedi samedi si ay 17 heures mais am na ñu ñëw wax ñu mais bi ñu waxee yaayam moom gëmu ko moom nee day xaar ba am lu ko leer. mais daal après timis si la bay jaraaf mii moom lañu ñi nekk fee moom lañu vocal si la ñëw def délégation ñëw fekk ñu fee ñu toog si basang bi si la expliqué daal ne si lañ nekk gànna doomu maam fas bi dama yor moto bi si la bokk. La famille traverse une rude épreuve difficile à surmonter, celle de perdre un être cher. dans des conditions aussi atroces. Leur fils est mort, son corps jeté dans l'océan. Une fin très avilissante. am sa koor jël ko waajal ko dem denc ji ko si armeer fii loolu dara gënu ko neex mais sa doom ñu ne la dee na mu ngi si ndox mi xamoo fan la nekk. Pape Gana rêvait grand pour lui et pour sa famille surtout pour sa maman d'après son oncle qui retient de lui son dévouement au travail. xale bi dafa nekkoon xale boo xam ne ku nangu woon liggéey la di yëngu ci lu bari lu bari pour liggéey rek pour seet loo xam ne nii mën na ci am pour dimbali ci ay waajuram. Les Guèye ont déjà procédé au rite funéraire pour que l'âme de Papa Gana Guèye repose en paix là où il sera rejeté par l'océan. La maison attenante est aussi endeuillée La famille Cissé a perdu un fils dans ce grand malheur. La demeure ne les pas. Parents, voisins et amis s'y succèdent pour présenter leurs condoléances. Mbaya était le gardien de de la Tchaoulen. Célèbre, il était très adulé dans le quartier. Sa mère paraît forte, malgré la souffrance qui l'assaille. ah ni ma xamee sama doom mu ami fulla am fayda am jom su doon dund nu mu métti métti métti dina ma vocal jotuma benn vocalam foofu laa njëkk a perdre espoir ña bi fu ma dalale sama xel mooy gis naa góoru cëw leen dafa sonn ma xam ne teer na ma ne sant yàlla comme yegsi na ba ñu suul ko metti na ma torop ndax gisuma bàmmeel ñàkk naa sama doom dem na bàyyiluma doom bu ma ko xoole l'opportunité d'effectuer l'immigration irrégulière s'est à deux reprises présentée à lui mais il a toujours refusé de braver les vagues pour se rendre en Europe d'après les confessions de son oncle yàlla xam na ne ma déggee na gaal ko dafa am problème man dama toog ma ne mbayaa dee na ba ma defee sama analyse dama ne koo xam ne waroon nañ la gaal ne la placé nga nga doo dem si kii kon boo fippoo dem si gaal la forcé nga dafa jëli dee man dama loolu laa wax soxlaay boppam moo ko Le quartier Guy Mouride porte également le deuil. L'émotion est palpable dans toute la localité. Cette mère de famille sent le monde s'écrouler sous ses pieds. Elle a perdu dans cette tragédie le seul soutien qu'elle avait, son fils, parti à son insu. Serigne Momar Ndiaye est décédé, laissant sa femme seule avec leur fille aînée, un nouveau-né. benn doom la am doom ji ngénteeguñ ko loolu ma gën a naqari ci dem bi démb dëj ko yëpp jeex. yéet naa lool lool sama xol xam naa ko. dee ma gën a loon dund bi ñëwee Serigne Dieng. D'après sa mère Serigne Momar gagnait bien sa vie à Guy où il tenait un restaurant. Rallier l'Espagne clandestinement ne figurait pas dans ses projets du moins il n'en parlait pas d'après sa maman. place bi luñ ci am xaalis boo rey xar mu jeex waaye waay waay waay boo nitee dara ku la bëgg a yóbbu fenn nga def toog jël sa wërsëg moom yàgg naa liggéey di amal bopp waaw yàgg naa liggéey di amal bopp ak où ils sont bloqués ont envoyé des messages vocaux à leurs proches pour leur conter les circonstances dans lesquelles la pirogue a chaviré. Un incendie se serait déclaré à bord avant le chavirement. li ñu nettali mooy ñoom dañoo réer bi ñu réeree ñu dem ba seen lekk di bëgg a jeex gaal goo xamante dañ ñëwoon quarante personnes lay yeb mu yeb cent li ñu wax kon xam nga boobu nga war a def cinq jours wala six jours ci daanaka trois jours yi ngay dundee dund bi nga yóbbu bi seen lekk bi jeexee il pare que ñu ni fi la xeex bi commencé parce que ñu ni waa Colobane guy mu du ñu lekk wala waa Thiawlène du ñu lekk te ngeen ànd bokk benn benn objectif ci la xeex bi jolli tàkk am tàkk-tàkk ñeexa ñenn ñi neer parce que ku neer dem ba sonn boo faatoo dañ lay sànni ci géej gi Serigne Momar s'est retrouvé piégé dans cette barque, en perdition, au milieu de l'océan. Il n'était pas seul, son meilleur ami était avec lui. Ahmad aussi n'a pas survécu au drame. Son décès plonge ses frères dans une profonde affliction. Sa famille n'est pas dans le déni. Elle est consciente qu'il n'est plus de ce monde, mais ce qui la chagrine, c'est le mystère qu'elle dit avoir décelé dans les rumeurs sur le décès de Amath Fall. parce que li ñu may wax dafa dafa dafa dafa dafa xajam sama xel. maanaam dee na dañ ko gaañ dee na daf sànni si géej mais ba tey bëgg naa xam exact suivi bi lan la man su ma xamee suivi bi lan la sant yàlla parce que yàllaa ñu ko joxoon yàllaa ko yóbbu mais naa xam neen amam la demee parce que bu ñu taxawee ne ma dafa xeex ñu jam ko ma dem feneen ñu ma dafa xeex ak benn rab bu newoon ci biir gaal bi ñu jam ko La pirogue ayant emporté ses fils du département aurait pris départ à Hambourg le lundi 10 juillet 2023. Ils étaient 65 à bord, si l'on se fie au recoupement effectué par la mairie de la commune de Rufisque-Est. 13 sont décédés en cours de route. Le reste coincé à Dakhla. Ils ont été secourus par la marine royale marocaine. Les personnes blessées, parce qu'il y en a plusieurs, sont dans une structure hospitalière et qui ont besoin d'assistance médicale, c'est normal, et qui ont besoin aussi d'être euh, rapatriés dans les meilleurs délais. Ce sur quoi nous sommes en train de démarcher avec l'autorité centrale. Tous les rescapés de cette tragédie ont été rapatriés une semaine après, grâce à la diligence des autorités sénégalaises. Malheureusement, le bilan s'est alourdi entre-temps, passant de 13 à 18 victimes. L'émigration clandestine n'est pas un phénomène nouveau dans le département de Rufisque, mais cette année, la vieille ville subit un regain de départ de jeunes désespérés. Le maire de la ville de Rufisque explique la résurgence du phénomène Barça-Barsak dans la cité de Mam Kumbalambe par le chômage et le sous-emploi qui tenaillent la jeunesse rufiscoise. L'effondrement de la pêche artisanale a exacerbé la misère des familles pauvres dépendantes de cette filière. Le département est un département de pêcheurs. Au-delà de la catastrophe humaine que vit tout le Sénégal par rapport à, l'absence de, formation et de métier pour les jeunes, nous y ajoutons cette question liée à la pêche qui faisait vivre la ville, le département. Aujourd'hui, qu'est-ce que reste-t-il aux, aux jeunes qui sont, dont les parents, les grands-parents ne, ne, connaissent que la tâche Que reste à ces jeunes-là aux frontières Parce que aussi, il faut oser le dire, il y a toute une mafia qui est organisée autour de ça et qui, comme dans les autres secteurs très mafieux aussi, essaie de faire miroiter, de faire amadouer, d'embrigader de, les jeunes dans un dispositif. Ça, il faut on dirait que l'État s'ébisse. Nous sommes effondrés, mais nous gardons l'espoir tranquille que ce pays va faire face à ce phénomène. Un tour au quai de pêche de Ndépé nous a permis de constater le déclin de la pêche artisanale. Les pêcheurs rufisquois sont rudement confrontés à la raréfaction des produits halieutiques. Seule une caisse de sardinelles est sortie de cette pirogue qui vient de débarquer sous nos yeux benn kees la am te gaal gi fere na plus de quatre cent mille francs dem géej ñëw teer benn kees jën dongulaan yi nga xam ne géej gi fi mu toll moo amatul jën Cette disette de la ressource halieutique pousse les pêcheurs à tenter l'immigration irrégulière. Face à cette urgence de survie, Des jeunes qui travaillaient dans ce quai ont migré vers d'autres cieux en quête de lendemain meilleur. D'année en année, il y a une rareté extraordinaire, des pillages extra, extraordinaires par des bateaux étrangers et aussi par un manque de défaillance et la surveillance euh, de nos autorités qui à tout moment des licences de pêche, des accords de pêche. Et je pense qu'il est temps euh, d'évaluer ces accords de pêche. En 2006, Euh, la première vague d'émigration qui était partie pour les îles de Canaries, ce n'était pas les pêcheurs. Mais par rapport à celle de c'est le pêcheur qui part. L'exode massif continue de faire des victimes. Paradoxalement, les morts ne découragent guère les candidats à ce voyage dont l'issue demeure incertaine. Dialgay a une fois essayé d'aller en Europe par voie maritime. Malgré l'enfer, qu'il a vécu en haute maire où il a failli laisser sa vie. Il se dit prêt à retenter l'expérience. waaw parce que dañu amul yaakaar si géej ak njaboot lañ fi bàyyi. da ngay nekk zone war di faj si kër gi da ngay ruus am na yoo xam ne day rey as gor moo tax ñuy jaayante ni pour dem Europe waaw tey gouvernement bu defoon li ko war si ñun kon du benn xale du fi jóge naan mu ngay dem Europe. Le désespoir obscurcit le quotidien de ces jeunes, désœuvrés et paupérisés. Ils n'appréhendent plus leur avenir sur cette terre devenue infertile à leurs yeux. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en 2022, 559 migrants sénégalais, dont 22 mineurs, ont perdu la vie dans l'Atlantique. Le bilan de 2023 risque d'être plus lourd plus de 150 pertes en vie humaine ont été enregistrées depuis le début de l'été.